mu mel ni kon technicien bi dafay nelaw laata xalam kon ñu dem ci li ci yéen kaay yeeg Lamine Samba. bisimila kaay la ñu tàggat suñu yaram ak suñu gaynde yi nga xam ni tey jii la ñuy jàkkaarloog Libéria ca stade ba ñu dippee doomu yaay Njilaan ak Jogoy di Léopold Sédar Senghor Walf Fadjri Sport ne bu juróom ñetti waxtu ci ngoon jotee lay doon euh, boobu le match nag mooy waaj Sénégal bi nga xam ni ndax daañu dem ca Brésil euh, Brésil Walf Fadjri Sport ne foofu la ñuy jongantee coupe du monde bi ndax dinañu fàtte la nga xam ni moom moo xewoon ca Bata stade yéenekaay ne Joseph Koto lu leer la wax ndax match bi mooy fexe ba suñu gaynde yi juboo ak askan wi askan wi stade yéenekaay ne ñépp dañoo meroom ndax wal gi ñu wal mel ni kuy wal dugub fële ca Bata Sud Quotidien ne ku ñaan ñàkk boo jëndee am Papis Demba Cissé ne li leer ba leer daal mooy il faut que rek ñu fàtte match bi nga xam ni mbaa li liñ ñu wanoon fële ca Bata foofeet la l'observateur yéenekaay Euh, fële tey jii ci suba ne tey jii ci samedi ji la ñuy suñu gaynde yi euh, naqar gi ñu tegoon askan wi askan wi l'observateur yéene kaay ne képp ku sàcc lu réew mi di ko guqi bëccëgu ndara kàmb ndax personnalité yi ñoom ña nga mel ni mbàccum gerte fële nga xam ni moom mooy dig di division des investigations criminelles gannaaw Pape Diop Astafirula Moustapha Diop ak Farbarito Senghor Samuel Sarr la ñu doon déglu démb conseiller financier bu Abdoulaye Wade l'observateur yéene kaay ne juróom-benni waxtu ñu ko déglu ba juróom-ñeenti waxtu yu teg fanweeri minute ñi ko doon déglu du kenn ku dul waa gendarmerie président bu Sénat Sophie Baro ne kannaaw ba mu waxtaanee ak waa fem Pape Diop nee na xaalis bi mu am yépp daf koo liggéey ndax mbi nit ñi di tëdd di nelaw mi ngi doon liggéey te léeg kat nit ñi di ko wax ne Pape Diop yaa moom lii ak yaa moom lee moom ñaari immeuble rekk la fii ci senegal Sénégal Souleymane Ndéné Ndiaye ne amul kenn ku ko mënal dara ndax amul benn compte boo xam ni moomul lay rendre à qui que loolu la wax ci l'observateur yéene kaay la libération yéene kaay ne wax ni nag moom dina leer léegi ba raw mi di Bandiolekul Sondel ndax Mbaye Jacques Diop mi nga xam ni moo jiite woon Rufisque moom mii la ñu woolu ca division des investigations criminelles li ko waral libération yéene kaay ne benn milliard yu teg juróom benn téeméeri million moom la ñu koy toppee te libération yéene kaay ne bu fekkee ni lañu koy toppee moom la danañu ko tëj ba dammi ca caabi ja li leer ba leer daal mooy caabi gi feeñ na laas ko di ñee am na lu yees lu am ci jabaru Abdoulaye Wade ji nga xam ni moom la ñu tuumaloon ne ab compagnie bu nekk fële ca Suisse moo ko joxoon xaalis bu bari mu damm ko ci poosam laas ko di ñee ne kor Abdoulaye Wade fay na boobule xaalis xaalis bu bari bi nga xam ni moom la ñu tegoon ca fonds de de la jeunesse enquête quotidien léegi mu leer nag ndax fukki milliards ak benn yi nga xam ni moom lañu ñu saax ci fukki at ak benn ñetti directeur général yi nga xam ni ñoo fa jaar ñoo ñii la ñu joxoñ baaraamub tuuma muy Malick Tall Yadd Ibrahima Condéto Niang ak Waly Fall enquête quotidien daaleel rek populaire yéene kaay jël daal ne église bi ñoom jóg nañu taxaw temb ngir képp koo xam ni danga sàcc alalu réew mi nga delloo si ko nag ndax kuréel gi nga xam ni sax ñoo yor enquête bi populaire yée kaay ne cardinal Théodore Adrien Sarr ne danañu ko ñaanal ba boobule alal ñu indi ko continuer yéene kaay ne waa parti démocratique sénégalais rawatina ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yoroon réew mi benn rek ali bi la ñu am continuer yéene kaay ne mooy lan mooy caisse noire gendarmerie bi moom jox leen lu leer nañ ñi nga xamante ne nii ñoo ñii la ñu tuumaal ne ñoo sëngemlee réew mi ah, sàcc ko bu ñu génn réew mi démb moom di Abdoulaye Wade di bëgg a génn réew mi laas ko di ñee ne ñaar ñi ko gunge woon moom dugg nañu ci rapitab sàmbalaw bi moo tax wàccuñu fi leen neex ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye ancien premier ministre ak Amadou Sall mi li ci biir L'As Quotidien eh, ñi jiite réew mi ay baadoola dëggantaan lañu L'As Quotidien ne Souleymane Ndéné Ndiaye sax moom ndaa mujj gedd ah, sunu làmb ne Lac de Guiers numéro deux gedd na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko doon dëkk ah, ci biir suñu làmb la ne ay adversaire am du kenn ku dul Tyson Gris Bordeaux ak Baye Mandione ci biir suñu làmb la Lac de Guiers 2 ne doomi zos lay takk li leer ba leer daal mooy caga yu bari astafirula ñu bari ñu takk seen bagage wutali Petite Côte ñu koy wax Saly Portugal direct info dikk na ci ak ñun ne ay xale yu ndaw ñoo fa nekk eh, di jaay seen bopp Walfadjri Grand Place ne ñenn ñiy jaay seen bopp kañ ñoom li leen gënal mooy ñu dem seeti màgget yoo xam ni ay màgget yu xobidaas lañu ndax ñoo ñoo yomb ci seen bët ci biir Walfadjri Grand Place la ñenn ci ñoom ne paa yi moom boo leen nee mbirum la ci rek cere ji sab na laalu rek ñi ngi ci suuf mbokk yi lii ma leen di bëgg a wax ku ma ko wax boo tëddoon ci suuf di nga jóg dem ci kaw baa boo nekkoon ci kaw di nga dem ci suuf baa sa yaram daw l'observateur yéene kaay ne ngoone fàl lay wuyoo am na ñaar fukki at ak juróom marchand ambulant la dafa jur doom joo xam ni yaramu barbateur la yor si ndax ci biir l'observateur yéene kaay nee na nag doom ji amul sax ay yéen li ci gën a doy waar ci biir l'observateur yéene kaay la ne euh, guddi gu nekk bu fekkee ni doom ji diwuñu ko karité der bi day xolleeku ba mel ni derub si ndax li leer ba leer daal mooy ku ko yër ci biir l'observateur yéene kaay da ngay xam ni ka mu séyal ab cousin la mbokk bu jege la taanak am na wolof lu mu ci wax man duma ko yeggali l'observateur yéene kaay tey mbokk yi ku ko yër moom sa yaram dafay daw man damay dem ndax wax dëgg yàlla lii moom lu doy waar la am déet